murtajan minnatun lana jariun rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ni seetaan te di nu déglu ñu dellusiwaat seen jataay bi ñuy wax madinatu ilmi ñu di ko amale fii nga xam ne moo di 24 actu ñu nuyu ñëpp siyaare ñëpp baalu àq ñëpp di nuyu ñi nekk ci réew mi ñu nekk ci bitim réew ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi nuy topp ci jataay bi di leen ñaanal ci sàkku ci ñaan tey nag ñu dikkaat ci benn jataay boo xamante ni bu gàtt lay doon waaye lu itteel ci réew mi lay doon euh, danoo seetlu ci sunu réew mi ne li nga xam ne moo di wàllu naan sàngara daf fee bari waxuma bari gi noonu rek dem waaye yomb gi nga xam ne yomb na fi ba ñépp joti ci ñu xool ne sunu réew mi sunu gone yi ñu ngi ci àgg ci jamono joo xamante ni dafa mel ni li ñuy wax ne danoo àgg faraay ba téene mooy bu ñu demee ba ci sunum réew ñu àgg ci foo xamante ni dañ fa autorisé ñuy liggéey sàngara mu àgg ci njëg goo xamante ni njëg gu jégg daye la goo xamante ni loo am rek man koo am ñu dem ba ay sasi yoo xam ne dañ koy defar di ko jaayee cent franc ñaar fukki dërëm xale yu ndaw yépp man cee joti gone yépp man cee joti ñu tudde ko Jakarta mu doon loo xamante ni lu doy waar la kon doomu aadama suñ borom daf ko bind ngir teral ko teddadil boppam nag waru ko bu gisee melo yi mu ko bindee ak ni mu ko bindee ak fi mu ko teg bokk ci li mu gën a teral muy doomu aadama kon doomu aadama wala waaye bu mu teddandil boppam li ko wax yi koy lor ak yi ko dul lor waaye bu dikkee ba ci sunu jamono bii nag tey ñu war a waxtaane leen mooy sàngara ak lor yi muy def ak yàq gi muy def ci société bi ak li muy def ci nit ñi loolu nag mën nañ cee tàmbalee gis ne jamono ji ñu nekk wàllu sàngara dafa bari dafa bari bari bari ba jégg dayoo te bu jëkk ay responsabilité yu bari nag ñoo ci ànd muy waajur yi mën naa ko tàmbalee ci état bi sax ki nga xam ne moo jiite réew mi muy état responsabilité bu mag la ci yor moom bu rëy rëy ni nga xam ne ni ci toppaat muy kilifa diine yi nga xam ne ñoom la nit ñi di déglu beneen bi ci toppaat mooy waajur yi ak seeni doom bu ko defee nag société bu mel noonu nag danuy delluwaat ci addis ba rek man raxaa min ku munkaran fal yu xayr bi yeddi fa in lam yastay fa bilisaanihi ba addis bi àgg ku mën a dindee loxo na nga dindee loxo ku mënta dindee loxo na nga dindee làmmañ ku mënta dindee làmmañ na nga ko dindee ci sa xol loolu nag mooy bi ci gën a suufee ku ci nekk bi nga man bu fekkee dangaa ngaa mën a dindee loxo di dindee làmmañ yàlla dina ko topp su fekkee dangaa ngaa mën a dindee làmmañ te dindiwoo di dindee sa xol loolu xamal ne am nga bàkkaar bu ko defee sàngara si nin ko gisee mu bari lool gouvernement bi leen ciy njëkke ak jëmmi nit ki sunu réew mi di Sénégal dafa mel ni réew la moo xamante ni dugal ci dorog ak sàngara dafa mel ni dafa yomb man nag jàpp naa ci sama xalaatu bopp li ko gën a waral bokk na ci frontières yi ni nit ñi dugg ci Sénégal Sénégal dafa yomba dugg dafa yomba dugg lool bu yombee dugg ba noppit amaat na beneen bu fi amaat mooy yomb fee am këyit xam nga ku dikk rek ñu wutal la nationalité ah nit koo xam ab làkkat la wala bëgguma ma làkkat sax mooy lan waaye dama bëgg a wax rek ku bokkut ak ñun waaso bokkut ak ñun sénégalais di sénégalais ñu wutal ko ab Euh, carte euh, ñu wutal ko passeport man fee am passeport man fee am dantité mën a am nationalité Sénégal man fee jóge dem ci meneen réew lu mu defaat rek day dellusiwaat ci sénégalais yi ak nangam loolu nag li ko waral mooy Sénégal bëgg xaalis gi mooy loo fi lijjanti ngir xaalis yor xaalis loo bëgg a yor xaalis mën naa nekk ku yor xaalis moom tontoom mooy lu mu bëgg mën naa nekk li koy naqari kay mooy lu mu bëgg lu mu bëggul rek waaye lu mu bëgg rek mën naa nekk maanaam boo yoree xaalis loo bëgg mën naa nekk bu ko defee sàngara si gis nañ ne bari na alxuraan def ko aaye yonent bi salaa salaam dikk aaye ko bu ngeen gisee sàngara bi ñu koy araamal bu njëkk dañ ko bàyyi woon noonu di naan waaye bi ñu koy aaye li taxoon ñu aaye ko mooy yàq gi ñu doon yàq alxuraan wax na ne dañoo naan sàngara ba noppi di julli ñu dégg benn waaye boo xam ne day julli di jàngo kaafiroon waaye fu dikkee di ko yàq di yàq ci laam yi yonent bi salaa salaam ñu wax ko mu ne lii de li muy jublu mu mooy dañuy dem ba alxuraan kenn dootu ko jàng mu wàcce woon ndax commande yi doo mën a tudd araf yi ba mu set doo ko mën a tudd loolu bokk na ci li ñu ne woon léegi comme sàngara nii la diisee léegi bu ñuy bëgg a julleeti bu ko kenn naanati bu ko kenn naanati waaye suñ borom dem ba jamono mu araamal ko ci nit ñi nag araamal ko ñu bàyyi ko yonent bi saxaaba yi ñoom ñi ko ci doon def néew bi ñu déggee na araam na ñoom lu leen yonante bi na araam na rek dañ koy daal di bàyyi naafeq yi tàmbali di ko naan ñu dem ba ci sunu jamono boo xamante nii Sénégal gi àgg nañ ci ñi ko daan def dañ leen daan nëbbutu wala dañ leen daan daw dañ daan jàpp ne nit ku amul benn maana mooy naan sàngara te noonu rek la demee ñu dem ba jamono ku koy naan autorisation ñu wutale autorisation ne la béréb sàngam mën nga ko faa jaaye mën ngaa dem naan ko fi ñu àgg ci loolu ba dem xante ubbi ay auberge auberge yoo xamante ni lan fay def mooy léegi patron yi ñoo fay daje wala borom xaalis wala xale yu ndaw yi mënta dem ca baare ñu daje fa di fa jaayante diggante sàngara ak jigéen ndax auberge bu ñu toog rek ngir jaamu yàlla gisaguma ko bu ko defee loolu gën a doon yàqu peuple bi tamit am ci responsabilité bu rëy xam nga koñ boo xamante ni xamuñu dara julli leen xam jàng alxuraan nga xëy na fa daj benn baara ñëpp ne cell ñu wax ñu ne autorisation gouvernement bi moo ko may ñu dem ci koñ ñu ubbi jox jigéen carte ne ko mën ngaa seet lu la neex jaay sa bopp heure bu la neex loolu jàpp naa ne jëmalewut am réew kanam bu fekkoon ne réew mi noonu lan bëgg dunde ba jóge fi loolu day mel ni suñ dund gi jaru ko jaru ko bu fekkee ak bon rek lan fi nar a nekkee ba jóge fi jaru ko responsabilité ñi koy def ak ñiy seetaan nang ci lan bokk ndax suñ doom yi rek ñooy dem baare bi nga ubbi xale bu ndaw di gis ay kilifa di dugg ak a génn xamul gis ñuy naan mu jàpp na lu kiile te kilifa bu ma waxee kilifa kilifa yépp laa ci jógu tu kilifa rek goo xamante ni kilifa aada waaye kilifa yi koy am na ñu koy def ñoo xamante ni dañuy gis ne ñii koy def ay royukaay lan ñu ne ay royukaay lan Sénégal nag loo def ñu rafetal la ko ñu rafetal la ko moom kuy naan sàngara ñu mën koo taxaw ci public ñëpp tàgg ko ne ku baax la moom ci boppam mu mën a fëgg dënnam wax ne man damay naan sàngara waaye ku am jom laa ku mën a liggéey laa ku nangam ñu mën koo tagg ma jàpp ni képp kuy naan sàngara li gën a bon ci nga nekk li gën a bon nag kenn waru laa mën a tagg ci kaw nit ñi ne la ku baax nga loolu lépp nag ki dem ba aase ba yor ba yor ba nekk ci koo xam ko aase la am 18 ans wala mu dem mu kàllaw kooku responsabilité boppam waaye la ci gën a métti mooy ki aase gut amagut benn responsabilité nar teel a soobu ci mbon googu Sénégal gi gisoon nañ fi bu njëkk dañuy wax ne film sàngam ko moyen de dix-huit waru koo seetaan ci télévision yi euh, loola dañ ko daan def mais léegi seetaanal li ñuy dawal ci télé bi moyen de deux cent ñoo koy seetaan wala ay trois cent quatre ans xale yu toll ci jàng ñooy seetaan yooyu benn film boo xam ne léegi interdit na ne moyen de dix-huit mooy am wowuma la loolu waaye sunu aada yi réew mi rek ñu bàyyi aada ji di def lu bon tele bi ci la xale yi jàng naan dorog ci la xale yi jàng defa nga ne moos bu ñu demee ba ab théâtre ñu ne kaskat yi ñu théâtre yi ñuy seetaan waa ji di ci jàngalee nu ñuy rey nit di ci jàngalee nu ñuy dugale dorog ci biir nit nu ñuy coup d'état nit nu ñuy def nit loolu lépp kilifa yépp ne ceel la ñu mën cee jàngale jigéen ju nobante ak góor nan ngeen di nobante ñépp ne ceel la ñu mën cee jàngale loo xamante ni képp koo xam ne da ngaa bëgg sàcc wala nga bëgg a coup wala nga bëgg a def dara man koo def ñëpp ne ceel kenn amu ci dara looy wa loolu nag day àgg ci axiru samaan ci mujj jamono lan toll sàngara nag mooy ñaawteef yi ci gën a ñaawteef yëpp nag mooy seen ndey ñu demoon ko nag dañ ko jaaye lu seer loo xamante ni ñu bari amuñu ci woon jot accès accès pour jot ci bu nu demee ba niveau bi wàcc ban koy jaayee deux cent francs wala cent francs xale yi di ko jaay ci bunti école yi di ko autorisé ay nit yor ko di ko fi liggéey loolu kilifa yëpp ne cell loolu day mel ni mbugalam yàlla mi ngi ñëw ci ñun te liy tekki ne mbugalam yàlla mi ngi dellu siwaat yàlla euh, ni ko alxuraan di waxe yàlla du soppeeku mukk ci jamono inna la xalaayu yuxayyiru maa bi xawmin hattaa yuxayyiru maa bi anfusihim lu dut ñun ñooy soppeeku sunu melo yàlla soppeeku ci ñun bu nu demee nag ba mbugal mii guddi ak bëccëg am mbubal di wàcc suñu kaw ñu reyante mel ni ay bàyyi ma loolu li koy waral war na noo xool lan moo war a reyante bi bari nit nu mu mën a ànd ak xelam rek mën a jël paaka wala mën a jël pistolet rey ko nit loolu am na intérêt yu tax mooy intérêt Sénégal bëgg xaalis gi dafa jégg dayoo fi nu waroon a teg yàlla léegi xaalis lan fa teg fi nu waroon a teg yàlla di ko jaamu xaalis lan fa teg loolu nag li muy tekk mooy responsable fan yii élection yi fan yi la jàll pourtant président yi fi ñi fi doon def ay candidat di raaj réew mi amul genn kilifa diine gu leen wax ne leen sunu xale yi di naan sàngara sunu xale yi nekk ci boîte yi sunu xale yi nga xam ne ñu ngi guddi ñu ngi rayen sa rayen rey baa ngi bari kenn waxu leen ci dara loo xam sunu daara yi nan ngeen di def ci programme bi daara yi baax nan ngeen di def sunu xale yi di taxaw ci mbedd yi mën a baax kenn waxu leen ci dara ñoom daal ay yoon la ñuy dig ay tëli la ñuy dig ay kër yi ñuy def ci kër sëriñ si yooyu lan ñuy dig ay ndox lan ñuy dig ay forage njaay mi di leen ko wàññi taxi bi di leen ko wàññi yooyu yëpp mais dara luy tax jikko baax duñ ko ko wax luy tax jikko baax ñoom posé wuñ ko ñu nit laajunu leen ko réew nag bu àggee ba kii laaj du la wax lu baax yow doo ko laaj lu baax loolu dafa mel ni doo ko laaj luy defar saw nit te jàpp naa ne ren lu nit ñi waroon a wax bu ñu demee ba sàngara nag ñu koy jaay ay ñaar fukk ay fukk ak juróom di ko jaay société bu ndaw bi jigéen di ko naan mën a génn ci télévision góor di ko naan ñu xam ko xale bu ndaw di ko naan keneen di ko naan ñu àgg ci yàqu-yàqu bi reyante bu bari bi buñ ko jiñ kenn de nan delluwaat ci source yi mooy xel yi ñoo baaxatut bu fekkee ne sàngara dañ ko misaale ëllëg ne képp koo xamante ni danga koy naan yemal xiyam bu ne taxawaay bu metti ba nit ñi di jàng alxuraan ne ne wattara naa sukkaara wa maa hum bi sukkaara nit ñi dañuy mel ni ku naan sàngara ku naan sàngara mooy ku xabtalu maanaam xabtalu dëgg mooy ku naan sàngara bu nu àggee ba ni nit mën a tëdde waajuram nit mën a tudde doomam nit mën a tëdde rakkam nit mën a tëdde nangam loolu nan delluwaat ci naan sàngara gi koy def lislaam lu mu aaye alxuraan dafa wax ne sàngara lor gi yonent bi salaasam dafa wax ne lor moo ëpp njariñ ji sagam am na njariñ sax kon bu nu àggee ci jamono bu toll fii xel yépp dem ñu dem ci naan sàngara bi metti metti waay bu mel nii nit ñi di rayante télévision yi waxoon naa ne benn waay nee na lu tax moyen de 18 ans yi ñu daan aye léegi ayeetuñ ko mu ne man de li tax na jàpp naa ne ayeetu ko ña daan dugg di am 18 ans léegi ñoo yore système bi maanaam ñoo yore mbir yi mbir ci seen loxo la nekk moo tax léegi moyen de 18 ans yi ñu ne comme ñun ñoo ko daan seetaan te xam nañ li ci nekk léegi nañ ko bàyyi moyen de deux cent seetaan ko moyen de trois cent moyen de nangam yii nii def nag télévision yi li muy yàq ak internet bi kenn xamul nu tool wax naa ko léegi bu fekkee télévision bi ci ngay gisee jigéen ju sol loo xamante ni nga gis ci ku yo mën a rey ne na dañuy rey te théâtre yooyu yëpp di yeete yooyu yàpp naa ne war nañ koo interdit responsabilité ñëpp la nag amul ku ci wàcc muy góor muy jigéen ku ci nekk yaa xam la nga ci yano waaye réew mu mel ni daal fa mu jëm mooy réew muy suuf réew mi nan xam ne ay mag a ko yoroon sàmm ko ci ay jikko yu rafet ay valeur ay jikko ay ngor da ngaa am jom ay nangam yooyu ñu fekkoon ko fi télé yi war a remplacer yooyu rajo yi war koo remplacer maam yi dañ daan lépp bu guddi jotee di la xamal da ngaa am jom nit ku gore nga fii nga bokk fii nga nangam bu ñu demee ba yàqu-yàqu yi ci télé yi nga koy dégg ci rajo yi nga koy dégg da nga koy gis ci mbedd yi danga koy gis ci nangam xale bi nan lay def léegi day jékki-jékki rek xam ne bon ginnaaw boo bonee ci ngay siiw ci lan la nit ñi joxe pouvoir ci ngay doone koo xam ne nangam nga li ñu war a wax daal bari na te metti na lool ci xol euh, wolof yi dañuy wax na nanga koy wax lu ñëpp xam da nga ciy wax tuuti waaye lii daal li nu bëggoon a wax bari na bu demee ba nu ñi nga xam ne ñooy jullit yi ëpp ci Sénégal ñu ne quatre-vingt-quinze pour cent te yàpp naa ne ëpp na ko ndax loolu 1970 lan ko fi waxoon 71 lan waxoon ne jullit yi ñu ngi fi toll quatre-vingt-quinze pour cent euh, bu demee ba ne euh, benn waay ne 1995 bi mu defee gëstoom 24 millions biteelu sàngara dugg na Sénégal loolu jàpp nañ ne chrétiens yi naanu ko ñoom dong même ñoom buñ ko doon naan sax xar naa ne loolu mënul nekk ci benn at ñu àgg ci jamono boo xamante ni Sénégal yàqu na ba ne benn waay bu yàggu rek seetaan naa télévision bi mu ne fecc xeeti fecc yi génn juróom-ñaar fukki xeeti fecc génn na ci loo xam kenn xamul lu mu doon kenn xamul bu nu demee ba favoriser ñooñu kuy fecc ak fecc ni mu ñàkk solo imaam Malik bi ñu ko laajee nag da ko fecc araam na wala araamul mun a xawma araam na wala araamul de waaye ñi yées ci suñu dëkk ñoo koy def ñi ca gën a yées Sénégal it fii ñi fi yées moo koy def suñu dëkk rek kon jàpp naa ne loolu amul benn njariñ nit ñi nan xool sàngara li mu mën a lor ak protéger suñu njaboot gi ëllëg réew mi àdduna bi tukkeegul te dara jëru fi dara dara jëru fi dara sunu bàmmeel moo war a gënal te bis bu nekk ñu ngi tiim sunu kàmb gi xamuñu kañ lañ ciy tàbbi xamuñu kañ lañ ciy tàbbi ña ci tàbbi woon ba léegi gisatuñu kenn ña daan def lu baax ñu ngi leen di nettali ña daan def leneen ñu ngi leen di nettali nan fexe ñu defar sunu àdduna defar sunu alaxira lin nu fi indee de mooy ñu jaamu jaamu gi nag mooy ñu defar sunu àdduna defar sunu alaxira lii rek bokk na ci malaaka yi da nga naa rek bi ñuy wax suñu borom ne ko suñu borom ne damay wàcce doomu aadama ci suuf ñu ne ko ñoo xam dañuy naan sàngara di reyante di tuuru deret nga leen di wàcce waaye loola booy seet ne la malaaka yi waxoon lépp am na lépp am na te doomu aadama kat mën naa dem ba mel ni malaaka wala mu gën ko sax mu gën ko kon lii jàpp nañ ne lu tuuti la ci li nu war a wax xañ na jombut beneen jataay nan amaat occasion waaye gis nañ ne réew mi ñu ngi koy jàmbat ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp seexu naa moo nekkoon ci caméraman bi ànd ak ki nga xam ne moo di bàyyi saalewu monteur bi ki nga xam ne moo di soxna Xadi soxna Awa Ndiaye moo doon réaliser émission bi ñu sant ñëpp gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah murtajan minnatun lana jari